xam ne ñu taxawaalukat yëpp si la ñuy dem xalaas xalil gi ki lañuy dem di doxaani jeeg yooyu teñ <laughs> woon am si ndam te ñoo seet si ko fëgg nuyu naa la yooyu ñu lay fay di wax onze billah bismillah ina war yàlla di wax ne jërëjëfe borom Touba jaara maam Cheikh Fall jaraw loxo ko Cheikh Ibrahima Meng Ngor waaw di wax ne ginnaaw bi ñu sant yàlla di julli si yonent bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur waaw di leen santaat bu baax di leen gërëmaat di leen santaat di leen gërëmaat waaw ndax amuñu lu dul suñu waajur fépp fu ñu toll wala lépp lu ñu am rek ñaanu waajur moo ko waral di sant suñu sëriñ sëriñ Cheikh Roxay Fall moom borom ndigal moom Baye maam Mbacke Fall Baye maam Samba Fall bàyyi Ndeye Badiane waaw bàyyi Yàlloo ñu ngi koy sant bu baax di ko wax Fall yàgg fi lool sa yàggaay am na njariñ di sant waa Ngor Wakaam Yoof Almadi Taraawo fukki penc ak ñaar yëpp rawatina waa Ngor ñu ngi leen di santaat di leen gërëmaat di leen sant yéen ñii di leen gërëm yéen journalistes yi. ñu nga wàccaay sa diggante doomu jàmm gën wàccaay bi nga dem si Maroc ñëw sa diggante bi jàmm gën arbitre sifflé nga def baat tontu dafa mel ni dafa li nga meroon dafa mel ni da ko sippi waaw balaa loolu dañuy sant rek maam làmp Seri Daba Ndiaye di sant Daba Ndiaye bu baax a asebro di ko wax ne joyeux anniversaire suñu bébé boobu yee ndax ñëw naa Maroc ñu téema bu mucc ayib li war si man yëpp ñu def ko barki alxuraan jàppale ma si côté yëpp eh, xiifu ma maruma dugal ma si saal yu baax saal yu gën a seer si saal yi eh, téema tée bu war waaw ba tey résultat am ñooñu kon duma def lu dul di santaat di leen gërëmaat te di leen ñaanal suñu borom gën leen defal tawféex eh, du ma def noonu ba dul sant di santaat ab Absa Diagne ñoom Mamadou ak waa Casablanca ñëpp maa leen di sant di sant Casa di jël nuyoo bi di ko teg si loxo ab sa wàccaay bi métti woon na méttiwul mais comme ni nga wax rek baa tax tontu amaana moom dafa yàkkamte woon rek wala dafa am lu mu doon daw moo tax mu ñëw jébbale boppam noonu. soo xoolee dafa xaw a si xeex bi. waaw parce que ah, làmb làmb stratégie la rek. parce que xeexul woon de àdduna ñëpp yaakaar na dafa ñëwoon pour xeex xeexul woon. dama doon woo def lan la dama doon woo si xeex. moom dafa doon woote de dëggalul boppam de su ma ko woon si xeex mu daw paquetam suuf. mais alhamdulilah am nañu ay coach yu si mel ni Père Ibou Diop Père Sundoy Kisiri euh, Paul Maurice Philippe As Sorou Samb xam nga Philippe ñu teg ñu si cote xamal nañu kii fii la jëm nii la koy defee te gis nañ ne foofu biñ ñëwee ba si bés ba gis nañ ne man coach yi li ñu ma doon wax. Mm-hmm. noonu la demee moo tax làmb ji am ñu si benn jafe-jafe ndigal rek a wóor déglu ndigal rek. yow li nga doon carte moom li nga doon carte yow moom nga ko carte. bu bëggoon xeex day taxaw ñu xeex. te buñ taxawoon xeex ma dóor ko mu daanu. Eh. barki Serigne Cheikh Fall borom digal. ci biir xeeb daa xaw a nga xaw a daw nag. du daax nga daw dóorul benn coup bu ma laal te man dóor naa ko ay coup yu ko laal boo xoolee adversaire bi mu daanoo dafa jugaat daanuwaat. da nga kaa tuuse. ko tuuse. parce que da ngaa dóor parce que dafa dóor daw paquet ma génnewaat ko maa ko ëpp doole mu jaxasoo jaxasoo waat dawaat song ma paquet ko naj ko. pressé ko pompé ko pompe waat ko xam ne instant bi dara newatu fa mu jox ma wet ma korosé naka ayoo ñu dem. gaal gi day teer waaw. gaal gi day day teer. gaal gi fu mu teer. gaal gi day teer jaama gën la teer fan la jógee teer. jaama gën waaw. si biir soo xoolee signature yi nga dégg yëpp nga ne ko waxoog man lébu yi nga doon waxal fan nga wékkoon loolu. waaw parce que man doomu lébu yi la man du ma fëgale bu ngor de fëgale bu lébu yi la hmm. fukki penc ak ñaar la ñuy xeexal lébu gi la ñuy xeexal ñun nee ñu fi lu gi parce que dafa wax mu ne ma man faalewu ma lébu yi ak lébu yi ñoo meroon. Ah, loolu la waxoon. dafa wax mu ne man faalewu ma lébu yi ma ne ko jaaraat si mu ne faalewu lébu ma ñëw lébu sas ma noonu demee. am kàddu bu daan dégg nga koy wax sa combat bi waxoo ko. dañuy samp yuure mooy lan. mooy xeex wax naa ko nee naa yow bu la ñu xeex ba waaw mooy loolu. mais xam naa ne moom. mooy loolu. du dëgal boppam quoi waaw da koy neex nii rek muy ndeelu noonu xam teg ay business am booy mooy li mu la wax rek duñ ay bandi koo su wax ne fëgal bu ngor ngay bëreel xam nga day yàkkamti bés bi parce que xam na ne ambiance day am lépp day am lamb day am coow xam waaw lamb ji day am coow tout court mais bu arbitre sifflé bu arbitre sifflé li mu la wax rek loolu ngay def loolu par force la yow xanaa man ma bañ de xanaa yow nga bañ waaw mais li ma bëgg rek moom ngay def hmm. bi nga si doomu jàmm gën boo depuis 31 décembre ak léegi Feugeleu bu Ngor est que woo nañ ko wala Feugeleu bu Ngor fan la jëm. waaw gars yi woo ñu ngi woo ñu ngi war a woo ñu ngi may woo ñu ngi woo ñu ngi war a woo mais ñun duñ ne fii lañ jëm wala faa lañ jëm defoon naa benn interview sax bi ma daanee noonu sur le champ ma génnee xam ñu dëkk ma micro yi rek ma teppeeku doonul lu ma war yee maa koy tuubaat di ko bu baax si staff communication bi di wax ne xam rek yaram bu tàngaloon moo tax ma waxee noonu ñooy tànn fi ñu jëm ki ñuy bëreel ndax dañoo dénkaane suñu bopp te nit du jexe bopp rocc ci làmmañ waaw. waaye tey jii na ñoo xam ne tey naataangoo lañ ci làmb. bari nañ ci làmb comme ñan. ñëpp kuy sama morom rek man maanaam mooy li ma wax làmb laa fi nekkal ku ma làmb wax ne moom ngay bëreel moom laay bëreel xam nga tey jii da am trois adversaires ñu ne trois adversaires yaay nii A B C ñooñu mënoo si génn kenn nga siy bëreel par force. waaw si biir euh, làmb am na ñoo xam tey jii bu ñu ñëwee combat rek seen xel yëpp dem na si Feugeula bu Ngor Feugeula bu Ngor bu ñu ñëwee làmb seen xel dem na si ñoom tey seen naataangoo ñu ngi si làmb ji nga bëri nga daan te ñoom bëreeguñ nañ daan. dëgg la mais liy gën a neex mooy yow journaliste bi nga ne ma xam ne kii laay bëreel. waaw yow yaa dugg si biir géew bi. waaw man maay dugg si géew bi mais amateur ñooy soxla combat du ñun bëri ñun ñun maanaam bu doon ñun ñooy soxla combat yi man tey jii nii hmm. buntu kër Modou Lo laay dem taxaw bu génne ma song ko bu doon yow ay taxawal buntu kër Modou Lo ngay taxaw bu doon man maay taxawal combat buntu kër Modou Lo laay taxaw bu génnee ma song ko ndax man loolu laay loolu yëpp garaaw eh? man loolu laay wër roi des arènes boobu laay wër mais maanaam amateur mooy taxawal combat amateur yi ñooy wax nañu diw ak diw mooy combat bu jaadu kii ak kii mooy combat bu neex. kon doomu jàmm gën amateur yi ko taxawal. ko bëggoon hmm. waaw. sa combat ak Laye Birisili. Laye Birisili Laye Birisili yàlla yàlla xam na ne xaw ma ko. dëgg na ka neex yàlla barki Serigne Cheikh Fall borom digal xaw ma ko. xamoo ko parce que démb moo njaale bëri arène nationale daal. su fekkee xam naa ko yàlla na ma am dara su yoonu Cheikh Fall xaw ma ko billaahi. nee na moom yow la bëgg a bëreel. ah nee moom ma la bëgg. waaw de moom koy cité na la nee na ñi ma bëgg a bëreel fëgg la bu ngor si la bokk ndax bu bëree mu neex bu feccee mu neex. day duy stade ba mu fees. waaw loolu bëgg si mbër. taw feex la mais neexu fëgg la nee xamula du dama ko xeebal dama ko xeeb wala nee non non ñun duñu xeeb doomu aadama mais dama koo xamul. te waa Ngor dañ ne boo fi bëri laa da ngay bëri ku ñëpp xam sinon ñun bëgguñu toogal mm. deux ans yaa xam. fii bëri ñëpp xam. voilà dama utal grand combat bu saf sàpp ku ñëpp xam. te grand combat bu saf sàpp ku ñëpp xam yow xam nga ñi nga xam ne boo nee fa duutee baaraam xam ne ñii say naataangoo lañ. mais fii fii nag kaay ma wala booy boo fi lim day dogo yaakaar na sax kii pareel na ma wala kii mooy loolu sóoraal na ma waaye nga lim ñoo xam ne ji ku ko dégg te xam ne ñii kat di fëgale bu ko lim ay naataangoom man moom lim mbër man dama ko bàyyi lim na diw laay bëreel dama ko bàyyi sama combat ma doomu jàmm gën rek man damaa yeesu lu bëri seetal nañ ma huit adversaires yoo xam ne dañ leen di seeti tay suba mu yàqu tay suba mu yàqu barki alxuraan lim leen lim ñoom xam nañ seen bopp ñoom ñi may dégg ñëpp ñoom ñi may non non parce am na loo xam ne tey day mel ni genre humiliation la wala autre chose mhm. ñun doxee noonu xam ay Baye Fall lañ mhm. yee mais bu làmb jotee dañ koy safal ba mu saf sapp doomu jàmmagan bi combat bi taxawee moom daj daj na lu mburu dajul si taal. daj na lu mburu dajul si taal waaw daj nga lu mburu dajul si taal ndax dama nga si Maroc daj lu ne. waaw man dem Maroc bi lu ma war la parce que gars yi ñoo ko saako si man xam nga bu ñu la moon toogal Sénégal nga entraîné fi laay toog entraîné ko mais ñoo ne ma génnal réew mi nga dem tërëng yi doolay <laughs> doolay <laughs> malaaxa la ma yor quoi. doolay doolay malaaxa la ma yor. moom la yor man moom la ma yor. Ah. mais amaana waaw bu ma toogoon fii damay nekk di benn bennal rek. combat boo xam ne man maa ko bëgg xam ne bërki démb rek maa ngi si waxtaan sa diggante loo sodd bi daan caatu fora loo sodd waaw loolu ay naataango lañ sa ay adversaire taay ngeen ëppandoo leen dara bu ngeen bëree mu neex bu ngeen xeex sa bu ngeen feccee mu neex mm, dëgg la loolu man maa ko bëgg waaw ay naataango nañ si taay ay naataango lañ si tolluwaay bëre mais maa ko ëpp sañ ëpp ko mbooloo gën ko metti gën ko bandi ëpp ko kase. li ngay wax noonu li ngay wax ni caméra bi tàkk nga koy wax di xam loo suur nga. yaa may dégg maa lay dégg maa la ëpp kase ëpp la mbooloo gën la neex gën la saf gën la metti gën la bandi. avance loo sóor bu ñëwoon pare nga pour jël. loo sóor ah sama beneen moroom ku mu si doon ku ko gën a saf moom loo sóor sax dafa timide man ku ko gën a metti laa bëgg. non Lozo de gisoon lim yéen Thiatou Fora barki Demba Ndiaye. Thiatou Fora Thiatou Fora nga wax ne fëgg la ma koy nuyu au passage moom roon di wax ne Baye Fall baa ngi lay bëggee mais Lô Sodou man ku ko gën a saf laa bëgg. ku gën a saf Lô Sodou. léegi ki gën a saf Lô Sodou kan man xaw ma gën a saf Lô Sodou. nañ ma xoolal làmb milieu. man damaa doyal si ay làmbante ne làmbu milieu laa soxla. milieu kon Lozo du làmb milieu. non non loolu du làmb milieu. te kan mooy làmb milieu ak kan ay làmb milieu fi ñu toll. booy milieu yi rek xam nga booy milieu yi. booy milieu yi yow yaa leen xam yow mi nekk mbër di dugg si. dagg sa yaram booy toog si télé bi di dagg seen yaram di teepee ko du ndeele ko. booy toog si télé bi dagg seen yaram di ndeele comme ñan. kan la booy xam nañ seen bopp koo si tudd danaan la nii wala naa wala nale. li nga nekkul tamit fëgale yow yaa ñemewul booy ba tax nangoo tudd seen tur fëgale ngay waxal de. non fëgale bi ma xamoon fëgale ma gis tey bokkul fëgale tey ma gis français la. noonu du français sax mais instant bi dañoo dëgmal yoon 31 décembre mooy woon sama premier komba ma doon mbër ku ma xool xam ne man la 31 laay door doon mbër barki alxuraan boobu mooy sa premier combat arène boobu mooy sama premier combat arène 31 décembre man benn combat arène boobu laay wàññe mooy sama premier combat arène nga jeexal année bi voilà ñu tëj année bi avec fierté waaw mooy li lébu yu bëggoon defal naa leen ko di leen ñaanaat ñuy gën di waaw waaw léegi combat milieu nga bëgg léegi ña ñooy mbëru milieu danga nga ko yow xam nga mbëru milieu nee ma diw at diw mbëru milieu lañ. booy milieu yi xam nañ seen bopp. te yéen amateur a dafa mel dafa mel yow yaa da ngaa ñemewul mbëru milieu yi quoi. akamaa akamaa ñeme. non man fëgale ma daan xam ak fëgale ma gis say bokkut. waa changement bu bëri dafa am parce que tamit xam nga si côté communication su côté yëpp xam nga dañ maa yàddaat si côté yëpp waaw dañ maa yàddaat si côté yëpp am na yoo xam ne tey jii waratuma sax waaw parce que loolu ñuy ñaan yàlla ko am encadrement bu baax ñu lay teg si code di la teg si yoon loolu lañ doon ñaan yàlla. kon daal koy gis man si li ma jot a dégg kon daal yow loo sóotu daal nga fi ñeme tax nga wax nga ne nga ne loo la. nangu woo ko jël ma laaj nga ne ma sa diggante yax loo sóotu. waaw xam nga da nga tudd moo tax ma ne loolu combat la mais man lu ko gën a métti laa bëgg. kon loo xeebu ma ko de mais méttiwul. kon dafa mel ni méttiwul. amul safara waa non xeebu ma ko champion la ndaanaan la. léegi yow da nga ne ñi am safara ngay wër. sa yow nangu nangu woo tudd ñi am safara yow ba ma tuddalee ñu am safara diw ak diw ma ne la kii baax na kii niveau am baaxul kii niveau am baaxul waa kii am na safara kii mooy loolu. diggante ak réparé. réparé moo si kan. ak Marley. non non daanu daanu yooyu du ma bëree moom. daanu daanu daanu daan du ma bëree yow. looy bëreel daan daan daan. daan kuy daan di dem ñu lay dégg fu ne man ko walaay bëreel réparé yi bàyyi ñu ma fi. Ah, demoon Maroc ñëw yokki doole. waaw yow réparé dama fi bàyyi man bu ma neexee ma paasal booy yëpp ñu dem Maroc. affaire bi du dem Maroc de affaire bi xam nga la arène nationale nga ñëw teg sañ-sañ doon bandi géew ambiance amateur yi kontaan ñëpp kontaan si yow nga def li la war lu ñu lay war laa mu milieu quoi man nee teg ñang baalo ñang baaloo bokkuñu niveau ñang day xaar pourquoi kon kon léegi yow nee ma yow fi nga bokkulee jox ma làmb ni làmb làmb jox naa la jox naa la loo sodu nga ne noonu loo sodu la duggoo si Badou Mbaye Badou Mbaye bu tënkee monte na ay combat yu neex voilà yow Badou Mbaye monte léegi wax ko Badou Mbaye monte neex léegi wax yi Badou Mbaye monte non mooy loolu ñu ko nuyuwaale au passage doomu lébu doomu tëngeej bi ñu koy a moom Badou Mbaye léegi bu wax li Badou Mbaye monte Bamba ki kaay wax ko combat bu neex voilà yow yaay wax ñoom Bamba si ko la ñu nekk man kay instant yi man mooy loolu man ñi ñoomay bëriloo de man ñi ñooy tax ma déedee lébu yi ngay gis nii hmm. barki Serigne Bamba ñooy tax may dagg sama yaram saa su ne waaw ñoom bu ñu ñëwee si kaw tribune la ñuy toog waaw ñoom asiko la ñuy yor at yuuxu. yaay sëgg bu ma geesoo ba gis leen. Hmm. bu ndaraan doon ñëw sax damay taxaw dëggal sama bopp. dee benn yoon du ñaar. billaay walaay taalaay. dee benn yoon la du ñaar. du ñett tamit promoteur yi nag ñuy déggante ñëpp a ngi woote mais waaw. promoteur ñëpp a ngi lay woo. ñëpp a ngi woote mais damaa bëgg làmb bu saf sap làmb bu metti. non man foog la ma xamoon foog la sañ-sañ laa xamoon. foog la teg der waaye foog la ma gis nii tey nii. non foog la ginnaaw laa gis. non nii la rek émission la xam nga <coughs> et puis fi def loo xam ne dañuy tàngal ba ñenn ñi dañu mere wala autre chose xam nga parce que communication dafa am solo si doomu aadama communication lu am solo la parce que nit waaw si leen lay nawee yee si lay ñàkk respecté. waaw war ngaa a xam say naataangoo ba tax nga ne na ñooy samay naataangoo. akamaa xam samay naataangoo man mi akamaa xam samay naataangoo xam naa ñi ma war a bëreel ñëpp. sama plan mën naa la. mën naa laaj leen mën wax ne combat bi bon bi nga ne combat bi stop kii laay bëreel bële stop kii laay bëreel bële stop kii laay bëreel ba mu mat quatre combat mais dadi làmb laa lay wax booy boo si wax ne soxla naa ko bu subaa mu dem si ay mbokkam ne kii dama waajal dama préparé la. kon lu jot am na si làmb. waaw parce que man samay combat yu bëri li ko yaaxal loolu la. man damaa naqaree utal combat. man ma toogee ne xali laa bëgg a bëri xali dem si ay mbokkam. voilà dem ñoo xam ndax moo laaj waaw moo toog si télé yi ne man la bëgg ñu bugg ko jël pareel na la man instant yii damaa sonn si loolu. Khalil mu ma doon tëkk kon loolu moo taxoon mu pare ma. man pour am combat day metti jafe fi mu toll nii rek damay toog bañ na sa combat diw ak diw. yow waaw ñett yi nii promoteur bi ma woowee ne ma ñetti adversaire yi bu la si gënal ma ne leen jox leen ma bii gën a metti ñu fay ma xaalis ma ñëw waaw mooy loolu. kon daal su ma déggee fëgg la bu ngor la turandoom nekk si moom daal la bëgg a indi si moom maanaam turandoom combat sur la daan jël. jeexal kooku maa maay moom muy man. ma koy nuyoo passage borom États-Unis muy Baye Fallou Serigne Saliou ku baax. combat waaw moom bu dul làmb sax damay geesu. wax dëgg neex yàlla bu dul làmb sax damay geesu. nga daan rakam rakam nga daan. laa daan ah. mais tamit xam nga gën a jege gën a yey man maay moom mooy man benn ñaar ñaari jëmm kenn la. sa xel daa mel ni ba dafa nekk jàmm gën. jàmm gën benn adversaire moo ma fa dese. benn benn adversaire kese fa dese. benn adversaire. te xam na boppam sax. mooy kii benn adversaire bi la des jàmm gën xam na boppam waaw xam na boppam moom. benn moo fa des bu tëddee du nelaw dama lay kiil. Oh, foofu benn fa des wala ñaar wala ñett dama lay kiil dama lay rey léegi. non man waa léegi benn boobu boo waxee ni sa jàmm gën mbër yi fa nekk bari na. xam na boppam du ma tudd turam sax di may mais xam na ma xam nii ma lay rey léegi. Ah, soo xoolee foofu Liss Ndiago fa nekk Baba Jaxal moo fa nekk ah, Souley Cheikh Baari mi ngi fa bëri na daanañ nekk jàmm gën jàmm gën benn adversaire moo a fa dese te dama koy kill benn moo la fa dese xam na man xam naa doful nice moom xam na yow xam nga ah kon baaba jaxal la en tout moom xam na man xam naa kon baaba jaxal la mooy lim laa en tout cas moom xam na man xam naa kon ñeme ko tudd man ma tudd kon baaba jaxal la <coughs> borom tuba kon baaba jaxal nga waxal peut-être yow sa xel si baaba la dem rek ñaara fa kon baaba jaxal la wala lis njaago déggoo ñaara fa nekk comme da ne ñaar ñoo ñaar nga fa keneen kon Baba Jaxal la wala Liss Ndiago fekkee ñeme woo leen na da wax man ma jaar si digg bi. ñaar ñi nga tudd ñu ne leen di lekk nii. leen di rendi bëgg la xanaa dama leen di rendi kon ni may def ginaar ñaar ñet ñaar ñi nga tudd nii muy Baba muy Liss nii laa leen def féppit rendi Liss jëm la 22. waaye ban la 22 foog la jóge si le 31 maa teg saison bi. Liss la Baba Baba jëm la la 14. jàmm laa dugg mboot ko waaye yow dama bàyyi yow nga ne maanaam ay liis ay baaba. kon liis ak baaba fu ñu toll nii. ay néew du doole lañ amuñu kàttan. Eh. maa ngi ne dama am doole ba yaaxu. ñoom ñaar kan moo si ay néew doole lañ man ab ma lekk ay jënde bees ay kéer ay mbaaka bokkuma ak ñoom yu ma ay mbawa la maa lekk cere ay mbawa bokkuma ak ñoom man lébu yi fi mu toll dañ ma waaye man dañ ma sas de. ñoom jàmm a yaakaar. man fi mu toll nii lébu yi dañ ma sas. loolu nga ne Baba Jax Alis Ndiago da nga leen di rendi fan nga wékk loolu da nga doole wala da nga leen dàq bëri wala combat lamb bi nga bëgg foofu la nekk. eh man lamb milieu laay war du sax kase am na feneen feneen de foo xam ne milieu nga fay daw. lamb mais keroog na la demee esaat. waaw keroog moom ñii ñaar ñëpp ñii ñaar ñëpp ñëpp dund lamb. te moo gën a dund lamb keroog ñii ñaar ñëpp dund lamb. taw feex rek waaw. sa kàddu gu mujj lan ngay tàggatoo sa diggante ak Pape Diagne <coughs> oh, papa la damaa tooy ko waa bi dama see liggéey lu métti dama see liggéey lu métti mais sama diggante ak Pape Diagne Seras di leen wax ne kooku suñu papa la kooku maanaam ndeysaan pour ma wax leen démb rek waa ñu xam kooku suñu diggante moom si xeeru Ngor 1 la jógee. bu mag xeeru Ngor bu mag maanaam jël escorteur dem ba Seras di jëli ji ay biyam. boobu jamono euh, mbër daanul jël kon ñu promoteur jël billet jox mbër may dem foofu di fa jëli ji ay huit bloc ay diis bolok si yooyu jamono yàgg. yàgg na kay. billaay wallaay wa taalaay doon koo xam ne waaw dañu tett si lépp bi demee ba toll si ñun mu jël ñu teg ñu si loxoy Pape Diagne mu doon ku baax ñu koy nuyoo passage xeeru ngor di ko wax ne alhamdulilah suñu garaan nga lépp lu nekk si ñun moom moo ko si def. bu weesee suñu père yi suñu papa yi course yi lépp lu ne suñun moom moo ko si def di santaat Pape Diagne bu baax a baax a baax di ko wax ne ñun ñu ngi gis liggéey bi muy liggéey suñun yéen ndax gis nañ avancement bi bu baax a baax a baax oh, ay 4 combats la ñu am 5 combats mais ñeewuñu suñu benn morom bu ne si làmba ji wax dëgg neex yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax damay def nag lu dul sant ñiy toog nii muy waa Réal bu ma limee sax damay juum. waaw Barça fii lépp am na fi. fi déggoo mooy àjjana fii lépp am na fi mais damay santaat di gërëmaat ngor ñëpp ñëpp laay sant di leen gërëm ngor ñëpp jeunesse bi kii juddu tey ba si kii si gën a mag maay sant ñëpp waaw di sant sama jigéen ñi sama jigéen ñi luñ dajul amul lu ñu dajul amul ñooñu ay jàmbaar lañ wax dëgg neex yàlla di sant meeru koñ bi paayi koñ bi ñëpp waa ngor kullu waaw di sant ñi ma jàppale si combat bi ñëpp. ku lim rek juum waaw parce que boo limee kii di bàyyi ñii mais képp ku may dégg rek ak képp kuy béggee fëgg la maa lay sant di la gërëm borom kurus yeex ñi doon ñaanax yee ñëpp daal maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waa Bamba di leen sant yéen it di leen gërëm ah. waaw alhamdulilah daal. di bëggewaat ñëpp di ziaraat ñëpp mënuma dugg ngor na ba génn sa. ki may nuyu xam na boppam moom xam na man xam naa maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar yaay faal bi maa ngi lay bëggee bu baax a baax di la ziar di la jox sa wàccuwaay bu wér a wér kenn si man nag muy Sofia waaw ba yaay mignon maa ngi lay bu baax a baax di la ziar di bëggee waat ñëpp rek ziaraat ñëpp tund ngor gi yëpp maa ngi di bëggee xalil dig de beneen émission fii lay doon rang muy gaaw